faatu wala ñoo tàggatoo. Mm-hmm, xam nga diabetes loo ci mënti wax am na loo ci bàyyi. dëgg la. moo tax xëy na li ñuy wax nañu li gën a wóor mooy. Mm-hmm. ñu wóolu seen docteur yi. Mm-hmm. te di diisoog ñoom. te di leen wax li ñoo def. te di leen wax li ñoo def. waaw parce que wax nga léegi ne am na ñoo xam ne dañoo oor te di ko nëbba. li laaxatu di oor. te fekk ne docteur aye na la ko wala yow sa feebar bi laaj ko. dëgg la waaw. parce que li ñuy wax euh, docteur bi mënu laa tere or. Mhm. daf la mën a yedd rek ne la euh, lii gënul ci yow. te muy dëgg. yow boo demee wéet ak sa bopp. Mhm. yaay tànn li nga xam ne moo dal sa xel. Mhm. bu mën ngaa topp advice si docteur bi. géeyee ñu bëri <laughs> weeru koor gi balaa muy jib si ñoom ñëpp dem seeti docteur pour yaakaar ñu wax leen. bul or <laughs> ñooñu moom boo leen waxee bul or. <laughs> loolu lañu ñu utsi ci yow. danañ la gaaw a dégg. dégg la ñi ci des dañoo dëgër bopp. boo leen waxee ne. yàlla bu muy sama sama maas beeg maasum boobu bi baakaarkat yi nga xam ne weeru koor gi la ñu yaakaar pour xëy na yàlla far seen baakaar yi uh-huh. astafurlah uh-huh. ñooñu li ñu yaakaar bi ñu ci weeru koor gi uh-huh. pour nga mën leen a wax lu leen tere or lu jafeñ la mën nañu toog ak yow docteur bi la nga wax ruus nañ laa gàntu ñu déglu la ba nga pare bu ñu demee def li ñoo def moo tax mbir mi wóolu woon te daf cee baax daf ci baax ku ci nekk li nekk sa bopp ak li nekk sa xel wax ko mu leer parce que mënuñ laa tere or waaye mën nañu toog ñu xelal la loo xam ne yaakaar nañ ne boo ci jaaree bu problème di am tamit du bëri parce que lenn li ma fàttee wax ci euh, visite bi nga xam ne war nga ko war naa tax euh, war nga ko dem ci sa docteur bi balaa koor gi balaa koor gi jot mooy ne ci yoon war ngeen waxtaan déggoo ci sukkur si nan ngeen bëgg mu yem mhm. bu wàccee fan la warut a romb. bu yegee fan la warut a romb. Mhm. ba pare ngeen wax naka ngeen di waxtaanee ci biir koor gi. dune rek boo demee sa kër waxtaan ngeen dem nga or gi stade na door nga di or doo wax waxateeg sa docteur ba faw déedéet. Mhm. boo demee saa yu nekk. Mhm. war nga am sa contact number docteur bi at least. nga xam ne boo gisee lu la jaaxal ci yaram. war loo bëggee leeral. nga yëg loolu nga wax ak moom. mu leeralal la ko. nga continuer ci jàmm na ñooy. wala ñoo tàggatoo docteur am na leen lu ndaw loo xam ne bëggoon naa nga waxtaan ci mm-hmm. parce que suñ safal yi safal yi nga xam ne moom lañ xewal léegi parce que euh, docteur rek docteur yu bari recommandé nuñ ko ma eboon ne daanaka ñëpp kenn kenn si yéen recommandé ko dëgg du ma du ma jaar ci tur yi comme ni nga ko waxee waaw parce que mën naa cee tooñ mm-hmm. te bu dul dara sax mm-hmm. ñu màggal weer bi bañ cee tooñ waaw nañ ne safal waaye safal yi ñoo advertise li ci ëpp xorom la xorom su bari amul lu ci ëpp daa yi ma daanaka yëpp xorom la yi ma xam. xorom la waaw ah, la. Mm-hmm. te xam nañ ne xorom bu ëpp. Mm-hmm. baaxul ci nit. dëgg la xorom bonul ci nit de bu dee mm-hmm. lu yem la ndax yaram bi daf ko soxla. bu ëppee. ci la lay indil problème te benn bi nga xam ne moom lañ ci gën a ràññee. mooy high blood pressure. xorom da koy isi. moo tax ñàkkul ne. suñu time mu yaay yeeg maam yi mm-hmm. li ñu daan safalee seen cin mm-hmm. ci dégg yi ñuy advertise fi mu nekk nii ba léegi damay daw tur mm-hmm. waaye daan nga dégg ay géeju Casamance ak ay yeneen ak yeneen yoo xam ne ay laurier aha ay lu ñu toggaan tubaar dafa daan neex lool waaw waaye léegi ku ci togg te li ñuy advertise yokkoo ko ci pour yow mu warut a am cafka. dëgg la loolu moom te demee noonu. dangay gis sax kuy dem man am naa benn rakk joo xam ne. Mhm. <laughs> mu ngay sëy fële ca faaraato moom. Mhm. jaral na ko sax. Mhm. mu bàyyi la ba nga dugg si biir mu dem jël seet wécc xaalis yi boppam. ñoo jëm jënd ko safali ñoo yokk ci cin li. am na ñoo xam ne sax bu ñuy lekk dañu koy teg seen bopp di ko toj di ko siw ci fi ñuy lekk. te dégg naa boobu gën a bon docteur. Ah, xaw ma nag luñ koy defaree. dégg naa boobu gën a bon xaw defaree. waaye. bëri na luñ koy tuumaal. Mm-hmm. waaye li ci gën a gaaw daal li nga xam ne leer na ba leer mooy ne xorom la mm-hmm. xorom su bëri te bu tuutee ba tuuti mm-hmm. baaxul ci blood pressure li muy def nag ci biir ak yeneen nag yeneen comme waruma torop bëgguma cee sori dëgg ah mbokk yi lii ñoo ko jot a déggandoor ci li nga xam ne moom la docteur Ahmed Seck wax ñu koy gërëmati ci waxtaan wu am solo wii naam weeri koor gi jeex na nag waaye foog naa ne lii nekk na loo xam ne ñi nga xam ne ñu ngi dundee feebar bi dinañ ci jàngee lu bari ñu am ci loo xam ne noonu lañ mën a waajalee seen koor bi nga xam ne xëñ na bu duggee ci koor gi tamit du leen gétteen wara du leen sonal ak ñi nga xam ne tamit am na garab yu ñoo naan ci loo xam ne moo jëm ci wàllu feebar bi te waruñoo oor ak naka lañ ko war a defee lii mooy leen liñ leen indi loon tey ci suñ programme bi di koor gi ak kër gi roxi bi tey nag moom it génnoon na comme dañ ne koor gi ak kër gi dafa am mbir moo xam ne dañ ko gis muy sonal askan wi muy sonal askan wi rawatina xale yu ndaw yi maanaam xale yu tuut tànk yi xale yi ñoom it dañu am seen axa ak seen yelleef am seen cër yoo xam ne kan moo leen ko mën a jox mooy seen waajur yi waaye ñu gis ne dafa am xale yu bari yoo xam ne dinañuy sofa maanaam li anglais di wax dinañuy sonna lool ci weer wi muy weeri koor parce que am na xale yoo xam ne duñ leen toggal am na ci xale yoo xam ne ay ndesit la ñoo lekka waaye am na ci nag xale yoo xam ne tamit benn tey dinañ leen toppatoo dinañ leen toggal ba mu baax dencal leen ko ci fridge bër set ñu tàngal leen ko ba mu tànga ñu jox leen ñu lekk waaye nag ndax ñëppay def loolu ñu àndandoor ak roxibité yi génnoon na ci biti yi waxtaan ak askan wi ñu topp ko. ndax nga gisee xale yi nga xam ne yéen soo leen toogee ndogu fi mu nekk yéen a ngi or soo leen xëyee suba xale yi ñoom oruñ ndax ngeen di def ak ñoom. ah dañ dee make sure ñu jëndal leen ndekka yu sew yoo xamante ne na leen satisfy daal balaa ndogu bi di jot because war a tooga añ tooga ndogu dafa metti ak ñun soo dañ ne naa jëndal lekka mbaate suñ toogee ndogu bi ñu wàññi leen suba ñu tàngal ko ñu jox ko gaay ñu lekka naa nga toog gaañu lekka wala soo reer soo desee nga tàngal nga jox ñu añ wala su fekkee desut nga toggal gaay añ yëpp da ngeen di desal gaay su fekkee desut ngeen toogal ga waaw soo desu kay mun ngaa togga soo desee mun nga wàññee gaa yi foofu nga tàngal gaa yi nga jox ñu lekk seen lekk bi dañ ko dee toppatoo ba baax ñu jënd seen mburu jënd seen yëpp tegal leen waaw ña leen nga jox la xaalis pour li ñu war a jëndee xale yi de bu ñu xëyee gari leen leen leen defal ak soow ñu ndéeg bëccëg ñu jënda leen soow ak mburu tam ñu añ waaw loolu dañ leen di ñoom si bés bi waaw di leen di jox maalo de mm. ñu xam ne ooruñ dañ leen dee toogal dañ dee desal am ñen jaaxaay ñu fa ñu deen toogal leen ñoo xam ne ooruñ noonu ñoo leen dee toogal ñun suñ wàccee ñu dem tooga pour ndogu bi <laughs> xale yi seen wàllu lekk bi lu ñuy def comme léegi weer koor la ku ci togg su reer bi desee da ko jël dugal ko si biir frigo bi suñ fa amee xale bu xaw a mag tuuti bu heure bi jotee mu tàngal reer bi añ bi mu jox xale yi ñu lekk fekkee ne desul nag. ah bu fekkee ne desul ah léegi dañuy manage rek boo amee sa dëkkandoor boo xam ne du def dara xanaa mu jox xale yi ñu lekk loolu rek a ci nekk parce que léegi jigéen yi ñoo yor kër yi. ah jërëjëfati rox yi ci waxtaan wu am solo woowu mbokk yi lii ñoo ko jot a déggandoor foog naa ne képp kuy duggaati ci koor te am njaboot di nga xam ne nga koo toppatooyee ak naka nga ko war a ah, saytoo bi nga xam ne xale bi moom it du sonn parce que tolloo ci or. lii mooy li leen indiloon tey ci suñ programme bi di koor gi ak kër gi di leen xamal nag tamit GRTS ëllëg ci talaata ji dañ leen indil waxtaan wu rëy bu yaatu boo xam ne mu ngi jëm ci laylatul xadar wala weer bu màgg guddi gu màgg gi nga xam ne ci la alquranul karim wàcca lan mooy ngëneelu guddi gi lan lañ war a def ci bés bi yan ñaan lañ ci war a def ak naka la ci jullit bi war a nekkee ba guddi gi suñ borom yàlla rek xam nag waaye mu nangul ñu ko wala ñu def ko ba am ci yaakaar léegi nag ñu leen di jox gisewaat ëllëg ngeen toppa ñu ci programme yu yaatu ci laylatul xadr spécial laylatul xadr leen jëlaat ci di indil euh, seen xarit Fatou Diop moo leen koor gi ak kër gi ñuy gërëmati roqi bi tey ci jàppale gi ak suñ caméraman yi ñëpp ak techniciens yi nga xam ne ñoo jàpp ci programme bi ak éditeurs yi ba ngeen mën ko seetaan di leen baaluwaat ak di leen baal ak di ñaan koor gi lépp luñ ci ñaan lépp luñ ci jaamu lépp luñ ci naafila ak lépp luñ ci oor yan nañu ko suñ borom nangul ci daraje sayyidul wujuud barke laylatul xadr barke shahru ramadan barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu fanaan jàmm wasalaam If you have any questions that you want answered during the holy month of Ramadan, all you have to do is to send us a text on the following numbers. AfriCell on 2020 200, QCell 30 30 300, Comium 60 60 600 or on the Gamcell line on 999 0909. Your questions answered this Ramadan on GRTS.